asalaamaaleykum Kaarang maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant kenn ji la ci microphone bi wii ma nigga bi booy di rafetlu teewal bi ma teewal dalal ma ci sunu hip hop ñu ngi bég bu baax a baax a baax di fas yéene question yu mu nar a posé yëpp ñu jëm ci am yuñ ci jéem a répondre yu ñu ci mënta répondre ñu bàyyi mu jàll ok washa yesaay donc noonu lay demee ah kenn ji moo doon nuyu gars yi bëgg bëgg nga xamante ne pare nañ pour déglu kenn ji benn instant noonu lay demee ah donc euh, en premier temps kenn di kenn di for one suñ gars yi déggee kenn di for one certes se pose la question lan mooy kenn di for one certes se disent sax kenn di for one est-ce que am na benn sens ou pas kenn di c'est un peu compliqué donc euh, pour nga décortiquer ko gars yi kenn ji en live dëggantaan sax laa bëgg wax sax pour nga décortiquer ko gars yi pour mu leer ci nopp yi parce que ça y a pas mal de gens qui se posent la question lan mooy kenn ji lan mooy live dëggantaan en plus lan mooy casino tëgg live si trois branches yooyu noonu bëggoon naa tamit nga leeral ko ci bëti bëti gars yi benn instant. wax nga lu am solo quoi parce que nit moom ah, chaque jour rek day day day focaliser wu ci. ci ci ci cest à ay turu MC bi xam nga te parce que nit tamit soo amee sa MC am nga droit xam nga xam moom ne boobu mu jéem a collé wu ci turam xam nga war nga mën a xam daal lan lay signifier quoi te si da si baax dama dama dama sama carrière cest à fu mu commencé mooy live dëggantaan xam nga fa laa dooree ak sama grand frère yi ma ko bokkaloon tey jii ku su nekk kii mu ngi liggéey lii kii mu ngi liggéey mu ngi ci leneen quoi. xam nga rek nit ku nekk mu ngi mu ngi ci dara tey man maa des ci crew bi xam nga après mujj gi ma dund carrière solo instant yi carrière solo laa nekk di def xam nga mooy loolu instant yi sama neem dafa ma feeñoo fu garaaw quoi dafa ma feeñoo fu garaaw boobu maa ngi def euh, sixième defe naa sixième secondaire laa doon def yaa ngi dégg dama tàmmoon à chaque fois rek à chaque fois MC Thiam la ñu ma doon wooye à chaque fois rek dama tàmmoon naan waaw man daal xam nga rek artiste bu jóg rek MC lay tudd MC lay tudd MC diw MC diw quoi. te man dama yàgg a bëgg affaire yoo xam ne nii affaire yu ñor di affaire yooyu noonu xam nga ma ne non sama tur daal fa ma jéem ko xoolal def ko benn genre benn genre affaire boo xam ne nii cest à day def day def cas benn genre philosophie boo xam ne day day def cas gars yi quoi xam nga moo taxoon ma fagaale ma ne xaaral ma jéem ma créer benn tur si laa toog xam nga ma toogee bind parce que man kaarang laa dëkk quoi xam nga kaarang laa dëkk kenn ji noonu la ma feeñoo dama ñëw. comme par exemple ma ne sëgam Kaarang laa dëkk bàyyi ma jël kaa bi ma def ko ma def ko ma def ko kaa pour Kaarang quoi e bi ma def ko évolution évolution you know that xam naa xam nga luy évolution you know news news xam nga ko en même temps aussi new generation bi ama mooy lool léegi moo boobu laa boole mu jox la kenn ji bi après ji bi Jolof quoi ji from Jolof Kaarang évolution new from Jolof Ah, loolu lay signifié daal pour gars yi jotul la xam neem bi naka la loolu la rek du dara quoi du ay ay cax daal comme gars yi ni ko kii garaawul garaaw boobu noonu. ba léegi cax la ba léegi cax la donc Karang news from Jorof ah that's right mu doon affaire boo xamante ne on voit toujours euh, c'est le c'est le même avec les rappeurs euh, dañuy jël benn affaire benn neem neem bi dafay am code d'habitude ci code boobu noonu nag yow il suffit que yow nga jege leen wala ñu toog devant la télé wala devant rajo ñu toog ñu wax ko nga doog a mën a comprendre parce que tout un chacun peut se définir cette nom on voit bien que ne y a K y a K E N J K E N G moi donc euh, on voit bien que ne loolu leer na ci nopp gars yi ah. Karang News euh, News Karang evolution and Jollof ah that's right on soit on voit bien que ne Kenji loolu lay définir loolu lay définir mais carrière u Kenji carrière u Kenji on voyait bien que carrière u dafa amoon benn sous forme de mythe mythe bu ci amoon mooy Kenji euh, souvent il avait tendance de faire euh, il avait tendance de faire des sounds yoo xamante ne peut-être euh, c'était gangster daf dafay dafay dafay hard d'après les chansons d'après les gens léegi se pose la question pourquoi King ji focaliser wu ci sound yi nga xamante ne dafay dafay dafay dafay doon sound boo xamante ne dafay engagé wu ci ci comme genre dirty sound genre yi genre trap bi dafa leen jaaxal trop quoi les gens la question pourquoi King ji toog changer veste veste comme ça lan moo lan moo waral changer vestement boobu quoi benn sens. loolu loolu nga wax en plus am na solo bu baax a baax parce que tamit ku xamoon bu njëkk. xamal ma ci kaw seen wala ci ay son yi benn instant da ngay xam ne man li may teg day métti métti goo xam ne nii sax maa reere taal yi pour nga ñeme ko sax problème ça da doon géng sa de trop xam ma rek te gangster rap man dafa doon loo xam ba léegi ni tey dama ko loof soo xoolee sama MP3 lu may gën a déglu presque gangster rap lay doon ay trap ni trapping wala ay dirty south yooyu noonu du ma koy déglu sax bariwul quoi mais chaque nit rek dafa am génération bu ñu tombeel quoi ñun yàlla dafa def dañoo tombeel génération dirty south génération trap trapping musique commercialisation comme gars yi dañ koy expliquer rek sablu yaa ma gën a nëw man ni comme rek ñu jéem a changer step bi mais ba léegi teewul ne comme saanu hardcore ba léegi nii tey soo ma ko tegalee dama koy def te maa ngi ciy waaj ay projet yoo xam ne nii comme par exemple mixtape bu may waajal nii Fallow Tape la tudd Fallow Tape incha allah dina am dina am dina am dina am gangster rap incha allah quoi loolu leer na ma quoi day am gangster parce que am na ay titres yoo xam ne waaw kii nañ si ba pare liggéey nañ si ba pare ko titres yooyu noonu titres yooyu liggéey nañ ci ba pare dina am gangster parce que tamit day da ciy baax xam nga sa artiste euh, nga am loo ko xamee woon parce que public gu léegi. public gu Karang léegi dofatuñu quoi xam nañu musique suñ la gisee nga nekk si benn affaire di ko def soo jékki-jékki génn ci loolu noonu comme tey ñi nga ko waxee nii non c'est typiquement réel quoi noonu la réel c'est réel parce que tey Gangsta rab lañ ma xamee kur bu ma nekkee nekkoon moom laa doon def comprendre nga ba après tey jii nii ma génn si crew bi génn ma ci crew bi sax mais crew bi ku si nekk dafa dafa dafa nekk focalisé wu ci lenn man maa ci des finalement moo tax ma utiliser. ma utiliser kii bi euh, carrière solo bi di ko dund quoi mais gars yi nañ ma séntu nañ ma séntu ci mixtape bii di ñëw dina am incha allah gangsta rap dina am dina am dina am gangsta rap bu tàng jër naa xool ñaari track yoo xam ne gangsta rap laa koy def na gars yi xaar lool ñoo xam ne nii ñoom ñoom ñoom ñoom ils sont ils typiquement. fan de gangster nañ ma xaar foofu noonu waaw ñoo xam ne Derry Sarr wala trap tamit nañ ma xaar foofu damay ñëw musique daal classique lépp laay def musique man damay def lépp incha allah gars yi dinañ xam loolu ci mixtape bi incha allah feeg 2017 bëgg naa mu génn soobee yàlla li ñuy xaar su dee yàlla matal na ko yee noonu la fa demee. That's right on voit bien que ne saa waay bàyyol benn benn benn mélodie li c'est dit ne peut révolution révolutionnaire booy booy révolté wu da ngay ànd ak jamono ji lim la laajte donc boo gisee bitu trap yi comme ni mu ni mu waxee ne la ciy teguwee te ñu xamee ko woon ci gangsta rap bi bon c'est parce que new generation bi moo ko laaj mun naa ne la majeure partie ñi ki fait hip hop actuellement soo leen tegalul bitu trap wala nga tegal leen dirty saab bu saf saf wala nga teg bit classique bu nice bon duñu duñu duñu sentir bu baax si si li ngay def sinon je peux dire que ne majeure partie bi mënuñ ci sentir seen bopp donc fu ñu jogee foofu ne sama gars yi dama leen di dugalal benn clip avec ma man Gaston tëgg tama muy sound bu nice bu ma like man ñu ñëwaat léegi léegi léegi ak Kendy for One